bëggal sama askan Ladoum TV Ladoum TV Ladoum TV mooy télé bi bëggal sama askan bergerie euh, Lamp Fall 184 la numéro box bi ñu fekk fi ki nga xamante ne moom mooy Malick Gueye Djibril euh, Mar moom mooy euh, borom bergerie bi mais ñu ñëw defal ñu fi benn exposition bu rafet bu extraordinaire Malick maa ngi lay nuyu di la ah, lay ziar bu baax sëñ am mbégte gu rëy vraiment ñoo fekk la ci biir Saladel. huitième édition nga ñëw def exposition bu rafet. vraiment aywa ginnaaw boo nuyoo ak gars Euh, nga présenté ñu bergerie Lamb Fall. waaw maa ngi ñëpp di gërëm ñëpp. Uh-huh. di nuyu diaspora bi. Mm-hmm. di nuyu sama mbokk ma fi fekk mm-hmm. yëpp. Mm-hmm. di nuyu particulièrement Euh, président Adam. Mhm. président Adel Adel waay. waaw di ko di ko si kii bi liggéey bi mu def nii. Mhm. si Saladel bi. Mhm. pour la première fois. nga ñëw si salon bi fekk at de trois cent et quelques box. xam nga loolu noonu c'est une première. te dañ siy kontaan bu baax a baax. dëgg la ñu ñëw nag def suñu exposition. xam nga ñoo bëgg leen présenter suñu exposition wala leen famille aywa mu nekk famille bu ma impressionné nag man. bi ma nee tëll moom laa njëkk a gis. macha allah moom mii waaw kii mooy Fatou. faatu waaw Fatou moom sëtu jaraaf la. ok sëtu jaraaf jaraaf moo ko jur. ok bu ñu yoroon kër ga. Mhm. bu tudd Balamay sax. Mhm. moo ko jur. ok doomam moo nii bii mooy la doom ji nu mu tudd. kii mooy imam. doomu kii la mhm. dictateur. di doomu diaspora. ok waaw moom moo ko jur. dictateur mooy doomu diaspora. waaw dictateur doomu moom. mi ngi kër ga mi ngi kër ga waaw mu mel ni beneen femelle la ngi nii. waaw beneen femelle la ngi nii. waaw waaw kii mooy top modèle. top modèle waaw allah elle top modèle mhm. moom. mooy xam kër gi. waaw macha allah macha allah macha allah. waaw moom doomu Dramé la. ok doomu Dramé la ok tamit doomu Balxiis la. ah ok yaay doomu Balxiis la. moom mooy këreemu kër gi. waaw vraiment macha allah rafet na trop. waaw moom moom ok. ak kan dafa mel ni gis naa fi beneen femelle am satu amsatoo ngi nii kii mooy amsatu. waaw waaw kii moom. puusal na le moo jël bopp bi xool. amsatoo nekk noonu waaw amsatoo nekk nii. macha allah moom doomu ransi la moom. ok doomu ransi la doomu ransi la la doomu bolt la. ok ok bolt Cheikh Diop. waaw waaw doomu ado la. macha allah waaw moom yaay doomu ado la. ok kon day nekk Cheikh Diop ak Boy Séeréer. ok mu mel ni des na fële beneen tëng. beneen tëng bi mooy kan ki mooy Darling. Darling. waaw Darling. ok moom yaay doomu Bénis la. papa doomu Galactique la. waaw. macha allah papa ji doomu galactique la papa ok moom si biiram dëgg la bokk. ok d' accord macha allah moo tax doole ji feeñ na ci waaw doole ji feeñ na macha allah. macha léegi nag kii nga xamante ne mooy borom këru. box bi mooy kan. <laughs> ki mooy Habibi. Habibi waaw Habibi. ok waaw moom ndaanaan la moom. macha allah kii mooy doom doom MGK la. ok doom MGK la. ok moom ku ne xam ne ko ci élevage. waaw waaw ndaanaan ndaanaan géniteur bu extraordinaire xëy na gàtt kon lañ koy jooy rek. waaw moom moo fi bàyyi bii nii. macha allah macha allah macha allah. yaayam sët Subéeru la. ok yaay sët Subéeru la si Abdou Fall beeg. ok ok moo tax taar bi ñëw na. vraiment dayo bi macha allah. aywa mu toog ñaata weer à peu près. 11 mois 11 mois. jeune mâle la. waaw ah ok ah, waaw moom dañ koy daal di nëbb kon ba ci kanam. <laughs> waaw incha allah boog mu liggéey def ay ah, preuve mais nag mënoon naa dugg. kii amul xar mu mënta gagné ci jeune mâle. Ah, macha allah vraiment. aywa mbokk yi bàyyi leen ko xel Habibi moo nekk nii ci bergerie Lamp Fall di ngeen ko dégg incha allah yal na yàlla guddal falam fanam te wéral ko est-ce que mën nga ñu wax képp ku bëggoon a ñëw ci bergerie bi pour fekk si fa li nga xamante mooy yeneen sujet yi nan lay def. adresse bi fan la waaw may contacter fii la Tëngéej. Këri Kaw. Këri Kaw numéro téléphone bi. 77 la. 263. 67. 21. 21 wala boo mënul jot am na numéro WhatsApp boo xam ne mooy propriétaire bi. waaw da ngay mooy numéro Djibril Mar quoi ok aywa mu nekk lu am solo en tout cas vraiment seen exposition bi rafet na lool ma leen di ñaanal bonne continuation ah, aywa dinañ fa ñëw xool li fa des présenté ko ñi nga xamante ne mooy àdduna aywa jërëjëf Malick merci beaucoup am na tamit doomu bâtonnier yu fa nekk. doomu bâtonnier yu nekk kër ga. ok ok moom mooy Hilary. waaw Hilary moom doomu bâtonnier la. ok ak Mousli yaa ji moom tamit doomu magistrat la. ok macha allah 100 pour cent magistrat moom tamit doomu bâtonnier la. ok tamit yaayam doomu jooni jooni la. yaayam doomu allah macha allah mais kon yow foog ñu ñëw kër ga. waaw am na jaariwu tamit. waaw jaariyatu la bumbum doomu magistrat la. macha allah macha allah. ak euh, des na beneen. Euh, ah, waaw mooy Habib bi moo nekk noonu ok d' accord moo nekk noonu. aywa kon daal am na tamit. Uh-huh. kii mooy doomu kii bee ngi nii euh, doomu diaspora bee nekk doomu diaspora ah, moo nekk nii ok dictateur moo nekk kër ga moom moo jur moto bi. am na tamit Mamba Noir. ok Mamba di ok mi seen kër Belgique sa Belgique la ok macha allah macha allah en tout am na solo. ba tey mu mel ni top model ñu ne la moom moo nekk nii fii nii am satu aussi moom ma ngi fii ni waaw am satu moom mooy doomu Range Rover aywa mu nekk vraiment ci yu rafet. yoo xamante ne neex na ñoo xool. mais également nekk ñoo xamante ni tey boo dee xool magistrat bi daf faa saf saf. ah magistrat bi daf fee saf saf. te xam nga magistrat képp koo xamante ni. élevage Sénégal. ko da ko révolutionné. waaw da ko da ko bu baax a baax a baax en bi rafet na di leen ñaanal yàlla barkeel ko. di la wax à très bientôt incha allah. aywa jaajëf Malick merci beaucoup. aywa xéwal télé bi bégal sama askan